dal leen ak jàmm cosaan fa ñu ko doon taataan ëkk ya fa des ba léegi suur na nanu gor lu doy amul doy lu lanu wax wax ji moo di jigéen ndimbalu kër la ci poosam wala ci jëfam seen jëf ñoom jigéen ñi ci koomu réew mi moom la fàllu fay ak sëriñ sàllu yàdd bu l'observateur xëy di càmbar yéeni kaay groupe Futurs Médias bi ne rapport bi ANSD fésal moo wane ni ci jamono yu mujj yi jigéen ñi def nañ jéego yu rëy ci wàllum liggéey dugal seen loxoot ci koom bi lépp ñu jaare ko ci entrepreneuriat ak leadership rapport bi leeral itam ne jigéen ñi def nañ lu ëpp ñaari junniy milliards ci koomu réew mi mi président Macky Sall moo koy jiite direct news ab nataalam la xëy fësal ci waxatam yéenekaay bi ne njiitu réew mi dugg na ci combat bi mu duppee front social ne li mu bëgg moo di njëgul dund gu cher gi ñu wàññi ko ci ni mu gënee gaaw nekkit xibaar boo xam ne ba mu jibeek léegi lu neex la borom kër yi ba tax ñoom ñëpp ñu ànd tàccu ci las quotidien ñu ne wax yomb na waaye jëf ji moo jafe ba tax ñoom borom kër yi di sàkku ci njiitu réew mi di président Macky Sall yi kàddu mu bañ a nekk ay naxee mbaay nan ko jëfe ak ci nun ko mënee defee borom kër yi ne dund gi cher na sonn nan tàyyi nan yeesal ci journal l'info ne dogal bi président de la république jël jural na réew mi yaakaar naam ne am na xel ñaar ci jëfe ko lii quotidien na dëgg la dund gu cher gi njiitu réew mi di président Macky na li ñuy xalaat moo di ndax mbir mu nu loolu moo tax mu woolu ay xeltukat laaj leen ku nekkit joxe sa xalaat ci biléb dogal dogal bi Aminata Touré jël fan la ko nar a jëmee laaj la bu journal Le Témoin samp professeur Ibou Sané ne mi dafa yàkkamti te yàkkamti yàqule Bakary Domingo ngo Mané né Aminata Touré li wax jëmele ko ci ñetteelu mandat né président Macky Sall mënu ko am lolé mën na nek kaddu yo xamné dina tax ba ñenn ci askan wu yërëm ko professeur Moussa Diaw né mom Aminata Touré nako bir né yoon wi mu jël nguur gi fi nek du ko ko yombalal ben yoon bi le jour ne mbir ma kay tàmbali na ci digënté mom Aminata Touré ak wa Benno Bokk yaakar ñom wa Benno Bokk yaakar ndax mën no jëlé Aminata Touré ci pencum ndaw réew ma di assemblée nationale docteur Mbaye Cissé nek am juriste ne dédét ci source a juriste bi né buñ ko sax jëm ndax né fi ak mimi démissionné wul gaay dara lañ ko mënalul Walf Quotidien lu ci mën di am daal diggante Aminata Touré ak waa Benno Bokk Yaakaar narta yomb benn yoon ca péncum ndawi réew ma réew mi douanier yi fi nekk waneeti nañ seen bopp Le Quotidien gablu yi lu ëpp benn milliard ci xaalis CFA lan jàpp ak ñaari doomu aadama ca Rosso ñu jëmoon ak moom ca réewum Mauritanie réewum Sénégal ak réewum Arabie Saoudite xaatim nanu déggoo Le Soleil national moo ko wax yéenekaay bi ne ñeent fukk ak ñaari Dakar jàpp Mbuur jëlati nay bakkan l'observateur moo ko wax journal rue 15 angle corniche bi ne ci benn bés fukki doomu aadama ak juróom ñàkk nañ seen bakkan ci ay l'accident ci kaw tali bi lépp nag mi ngi xewee ci diggante Mbuur ak Dakar ak diggante Sinthiou Malem jàpp Koussanar turbine yéen kaay na dëgg la yoonu Tambacounda ak Mbuur kay ci benn bés fukki doomu aadama juróom benn faatu nañ ci ci ay l'accident di lu doy waar li doy waar kay moo ngi ci xëtu njëkku libération journal bi ne faatug Nafisatu Jeeju am na keneen takk deri njortu ne laale na ca ba tax moom it jamono ji yoon teg na ko loxo loxo yéenekaay bi yokku ca ne autopsie bi la mu wane dafay dëggal la enquêteurs ya njortoon keneen ku nekk ci enquête jamono ji moo di Kaliphone ndaw si ko tuumal viol ak ay duma moom la l'observateur xëy dalal aji caare jaw lay wuyoo bàyyilul dara waa lobs ak ndawam am njàngam ci ñi mu jàllee concours si bi ba ci ni mu waxee ni kalifon da ko violé lépp la waxtaan ak waa l'observateur waaye yéenekaay bi nee na rapport bi gynécologue bi fésal la mu wane moo di viol amul ndaw si weddi ko ba ndax nee na gynécologue bi ak rapportam lanu wax dara du ca dëgg ndax nee na ko duma na ko